وضاحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر xam nga dafa am benn daayira boo xam ne biñ taxawalee ci jumaa ji loo xam ne biñ gisee ba gis ne jumaa ji ni mu rëyee léegi dana am mbir yoo xam ne day xew boo jëlee ni ki bala nga koo génne fenn moo di jafe-jafe ci lañ taxawaloon barab boobu ñu doon wanoon ba di di fa faj irsan ci lañ doon ñu lëkkaloo ci mbokki taalibe yi sëñ Abdou Lahad Faye mi ak ku wax sëñ Aali Gay waaw ñoo sëñ Abdou Lahad Fay moom bokkoon na ci waaye clinique la yor euh, euh, yàlla dogal nag bu ñu ko taxawal ku ñu wax aale ñu coordonné liggéey bi yàlla dogal 2018 lañ ko taxawaloon xëy na 2019 2020 bi sax bi xew-xew bi amee ñu baax dañoo defee ne ci lañ ko taxawale fekk fajoon nañ ci njëkk loolu euh, ren nag dafa gën a yaatuwaat ndaxte kilifa yu mag yi ci kaw sax dañoo gis ni dafa am solo lool ndaxte ren jii rek euh, docteur euh, ministère bi yónnee na fi ay nit euh, ci liggéey bi xool bi mu jubee waa OMS ñëw nañ fa toma di mat CCF yónnee na fi ay délégation woo nu ñu nañu ñu ñëw ak ñoom waa PRA ñoom jàpp ci noonu bi loolu amee nag ñu taxawal ñii kii nii mooy coordonné pharmacie yi ndax ñun garab yi ñu fay soxla dañ ci wax mbokki taalibe yi moom mi ne ma ko defar pharmacie yi ci dëkk bi ne kenn ku nekk am loo barkeeloo te liste yi garab ya nday màggat mi nga xam moo di di district bi tamit lëkkaloo ñoom noonu ci liggéey bi ñu dem ay réunion yu bare bare mu jàpp ci lii di daayira boo xam ne 2001 la woon mu tudd tam Touba assistant médical di ay taalibe yoo xam ne ci daa 2001 la taxawoon ci kanam Sëñ Saaliw leen tudde woon trop biñ taxawee loolu nag ñuy faj ci wàllu faj moom la moom la moom la waaw ba tey waaw ci jëwriñ la bokkoon waaw waaw day màggat sax nee na ci la bokkoon ak ñoom ñëpp ci lañ bokkoon waaw ci la bokkoon eh, ren jii mbooloo mu baree bare ndax ñun jumaa ji dañuy wax ne mooy njëkk nit ñi mooy mujj nit ndax bu dañ yi fa li wër jumaa ji bu ñu subal màggal la ñuy ñëw bu ñu màggalee bi su bëgg ñu dellu te fi mu toll ba fi may waxee yow tey jii ñi nga a ñëw waaye médecin eh, docteur eh, malade yi kii bi ñu ngi leen teye moo taxoon na tey jii ñu ànd ak ñoom ñëw biñ la ko leeralee biig nga nga rafetlu ko lool ba sàkkuwaat amu jotaay ñoom moo taxoon ñu ñëw nii bëgg nag ña ca des dañoo dellu bii bi ñu delloo ne waaye nag nga ñaanal leen ñoom ñëpp ndax am nañ yéene. ñu ñëwoon ci jumaa ji. jàppale ko hôpitaux yi am ci yoo xam ne ay mbokk taalibe yu doxal ay site la ay antenne médicale am ci yoo xam ne ñu yoral suñu bopp la ay vétérinaire sax am nañ ko ci màggal gi nga xam ne ñoo doon superviser abattoir yi ak yenn toggukaay yi nekk ci ci ci ci kii bi. loolu nag ñu ngi lay seeral ne pharmacie yi ci dëkk bi jàmbaar lañ ci lool taxaw nañ ci dina jot ay cant yoo xam ne mu soxna mun taxa moom jàpp nañ ci lool taxawaay mi rafet rafet ci ci ci faj mi ak ci yeneen yi ci des jàpp na ci euh, professeur Daouda Ndiaye moom daaw dafay ñëwoon indi fi garab sëñ bi euh, ba mu xoolee barab bee daa koy rafetlu ren jiiti bi ko suñu Cheikh Awa Balla waxee. bi mu jubee indi na fi ay bagages yu baree baree bare waa tam gi itam yëmuñ ci fàcc waaye du ñu indi waati garab ñoom ab laat fay kenn ku nekk boo ñëwee da ngay ñëw indaale war garab loo taxoon ñuy amaan ak sëñ laat bi su ma terminé ñëw fi ngir seen jëf ji gannaaw liggéey bi yow yaay jëwri ni sëriñ bi moo taxoon ñëw ñu bëgg nga ñaanal leen ndax ñu ci am yéene lañ ndax gis nañ ne jumaa ji bu fa bu dara xewee bu fa dara daanoo te yëmut foofu tamit dañu wutoon ñaari ambulance yoo xam ne moo féete woon yoo xam ne ku ku ku nar a yàgg rek ku am jafe-jafe saa su ñu laa faj dañ lay faj bu nar yàgg ñu soog laa jël yóbbu la ci hôpital yi loo taxoon ñu ak ñoom fi taxaw fi ngir eh, jafe seen jëf noora <laughs> am nuyoo bu ak cant ngërëm ci liggéey bi nga xam ne démb sëriñ Abdoul Ahad Bousso wax na ko leeral na ma ko ci jumaa ji ak taxawaay bi maa ngi door mi ngi may door a leer sax bii dëgg dëgg dëgg rek ndax daaw junjoon na ma ko waaye xaw ma nu mu waaye. loolu moom dara jiitu ko ci yitte ji ndax ne ko suñu bilaad waxee jumaa ji moo koy njëkkee moo koy njëkkee moo koy mujjee te fële ñëpp yi di daje kon loolu xalaat la bu rafet ndax màggal gi circulation bi du ñuy xate am na ci ñoo xam boo leen fa bëggee jëlee bala ñoo àgg boo yeexee gàllankoor dab leen ci diggante bi kon nag bu yàlla defee ngeen daje daayira bi ak gi ngeen sosaat lépp jëm ko taxawoo taalibe Sëriñ Tuubaa ci màggal gi loolu xalaat liggéey bu rafet la kon ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di ñaan itam euh, sëñ bi sëñ bi taxaw ngeen di jëf te bu ngeen ko gënoon a sorit gis bi daa neex teg na ci ba ndawat na ngeen di koy liggéey ci biiram kon doolu cee góorgóorlu doolu cee def yit ak positif te xam ne tànnewu sëñ bi la ndax jumaa jum ko fa Sëriñ Tuubaa liggéey loo rek tànneefam ak bëgg-bëggam kon ñu ngi leen sant leen gërëm leen ñaan bu baax ngeen yàgg koo jëf te suñu borom barkeele leen seen liggéey bi ngeen leen cee defee ndimbal rek tawfeex bu baax barke suñu Tuubaa ñaari barab lañ ko defoon benn bi ay nekk fa góor ñi benn bi jigéen nekk fa dafa jigéen lañ ko defoon nga xam ne jaxasoo am ci war ma ci ko bëggee. sàmmante sàmmante gi baax na ci ndax moom noonu la ko suñ bi daa digle keesu góor ñi ak keesu kër jigéen ñi buntu góor ñi buntu jigéen ñi kon fam fu mu nekkit luñ fay liggéey noonu lañ ko war a doxale shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim euh, ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax a baax ci fekkeloo gim ñu fekkeeloo bés bu tedd bii di sant sant sëriñ Muntaxa mi nga xam ne ni moo fi nekkal Cheikhul Khadim ak mbokkam yi nga xam ne ni ñoom la ko seqal ñëpp di sant sëñ Basiiru Mbàkke ñoom mi nga xam ne ni moo ñu wool woon jii ngir ñu leeral ko liggéey bi nga xam ne moom lañ def ci biir jumaay Touba ji muy infirmerie ba nga xam ne nii waa daayiratu Muxaddamatul Xidma taxawal nañ ko bii mooy ñetteelu at bi nga xam ne nii ñu ngi ciy jéem di taxawu mbokki taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw ci barabu sëñ Touba di siyaar si di dem ci yeneen barab yi ku ci am dara lu la gaar ñu mën laa taxawu. ci loolu nag ànd nañ ko ak ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci biir Touba yëpp di ci jiital ki nga xam ne nii moom moo yor district sanitaire bi muy docteur Ndeye màgget Diop. di sant également euh, l'association de pharmaciens de Touba ci njiitul docteur Thioban mi nga xam ne moo nekk di sama di sant également les médecins chefs de centre de santé te docteur Sare teewal leen fii waaye moom daa àndaale ñaari kasket ndax moom moo nekk jëruñu tamit euh, bu Touba assistance médical ànd ak euh, docteur euh, Babacar Faye docteur Alioune Ndiaye. ñu ngi sant tamit professeur Daouda njaay ci ndimbal gi nga xam ne na ko ren ngir gën a dooleel barab ba ndax ba mu fa ñëwee daaw seet si ko. daa amoon yéene barkeelu ci liggéey Sëñ Touba bi ñu ngi koy sant bu baax te di ko talal loxo at mu jot mën nañu jàpp ci liggéey bi ndax liggéey bi yaatu na yaatu goo xam ne ni bu ñëpp dugalee seen dara rek moom mooy maa tax fañ bëgg mu àgg mu mën faa àgg ñu ngi sant nag waa daayira Muxaddamatul Xidma bu baax ci xalaat yi ndax lu mel nii daana daana faral di jóge ci ci ci ci ci wàllu kuy nekk kër docteur waaye ñoom ñeewante gi nga xam ne ñeewante nañ ko askan wi ci tolof tolof yi ñu faral di am ci biir màggal gi te yóbbu leen ci barabu fajukaay yi xëy na xaw naa am distance ak euh, euh, euh, bara jumaa ji moo taxoon ñoom ñu xalaatoon ko ba taxawal ko ak léegi nag ñun ñu ngi koy ànd ak ñoom ci édition yi jiitu yi ba bu bu tey bi ñu leen ñaanal yàlla lépp loo xam ne nii ñu ngi ko ci sàkku muy ngërëmu sëñ Tuubaa ñun ñëpp ñu boole ko dajale te amee ko nanga xam ne si moom la ñu sëñ bi diggee ñu ngi sant bu baax mbooloo mi sant nañ leen ñoom ñëpp ci loolu nag mënuñoo ñàkk beral ab ak cant ñenn ñi nga xam ne nii Euh, bu liggéey bi accès fii ñoom ñoo ko waral muy docteur euh, Ale mi nga xam ne moo doon coordonné lépp loo xam ne nii moo nekkoon volet médical bi euh, docteur Mahamadan Lo bi nekk pra bu Jurbel ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci dolli garab yi yeeg dimbali ñu moom da ko sax weesu ba ci wàllu taxawaay sax ci wàllu xalaat ak yëpp da ciy daal di participer ci loolu tamit ñu ngi ciy woo ci woo tamit ñeneen ñi nga xam ne ni suñu mbokki taalibe yi nekk un peu partout dans le dans le monde voilà euh, muy toll mu nekk euh, ñenn ñi ne biir biir Sénégal ñenn ñi nekk bitim réew waaye docteur Dieng mi nga xam ne nii moom moo nekk euh, région médical ministre de la santé ak yeneen kuréel yi nga xam ne dañuy yëngatu wàllum faj te ne ci biir réew mi ku ci nekk ñu lay taara seen loxo di la ko jox pour nga ñu jàppale ñu liggéey Sëñ Tuubaa bi ndax nit ñi moom bu Sëñ Tuubaa xewlee barabu Sëñ Tuubaa bi moom fol nit ñi daje ji fa nit ñi daje nag day day am loo xam ne mënu faa ñàkk muy ku sonn ñu mën laa dimbali ak euh, euh, képp koo xam ne nii tamit euh, su ajowoo nga ndimbal ñu mën laa dimbali képp ko fa feebar ñu mën laa dimbali ci wàllu taxaw yi tamit soxna Bally mu sëñ Muntaxa taxawaay bi mu am ci biir jumaa ji lu jiitu tey sax war waral war waraloo woon lañ koy ci cant waaye nag rawatina ñun ñi nga xam ne nii gis nañ ne la nekk ci infirmerie ba ña fa doon nekk di fa xëy suba ngoon lu ci bal lu ci bari ca la nga xam moom la doon soxla moom moo leen ci doon dimbali loolu nag ñu ngi jël cant gi di ko ci teg ci loxo daayira Muxaddamatul Xidma bi mu jot li ñu ko ñu koy tàllalaat loxo yi ci yeneen yi nga xam ne nii ay taxawaay la yoo xam ne nii Muxaddamatul Xidma dina ko ànd ak kuréel docteur yi nga xam ne moo ne ci biir dëkk bi ñu wëyal liggéey yi nga xam ne moom lañ tàmbali at yi nga xam ne mu jiitu mu taxaw mag ñi ne nii ñoo nekk ci biir jumaa ji ak ñi nga ko ñaanal Sëñ Amdi di sant bu baax a baax ci màggal gi ñu jugee ñu docteur Abdoulaye Sare centre de santé Daaru Manaan teewal fi district bu Touba ci jëwriñ di docteur Ndeye Maguette euh, ñu àndoon ak liggéey bi ak waa daayira Muxaddamatul Xidma waaye ànd koo gi ñëpp ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci biir barab bi mu nekk initiative boo xamante ne nii bu am solo la nga xam ne nun waa district la waroon waaye bi nu amee xalaat ba taxawal ko rek moom district yi jàpp na ci bu baax a baax a baax nga xam ne sous la couverture euh, du centre de santé euh, de 28 euh, centre de santé Sëñ Saliou avec le médecin chef docteur Modou Faty Diouf nga xamante ne nii taxaw bi am na solo lool ñu jëloon ay ambulance stationné ko ci buntu jumaa ji nga xamante ne nii képp koo xamante ne nii amaana gàllankoor gam am ci yaramam jotewul ci ne infirmerie bi nekk ci biir dana ko mën a taxawu wala bu ñu levee urgence ba pare ñu mën ko yëpp ci ambulance yóbbu ko ci sanitaire bu gën a jege te boobu 28 la kon ñoo ngi santaat bu baax a baax a baax a baax di remercier képp koo xamante ne nii ànd nañu moom ci liggéey bi jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare bu baax di leen ndokkal ci màggal gu Serigne Touba mag yi ñu génn ci sant yàlla bu baax. ndax loo doon ñaan yàlla may la nga egg ci jàmm ba génn jàmm yàlla sunu borom defal la loolu sant yàlla war na ci ndax bis bisu sant la kon ñu ngi sant yàlla bu baax di jiite ci sant gi Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal fi loolu ti wéral ko ndax liggéey bi mu tàmbalee noonu dem leeral ko ko lañ fay def ak lépp mu rafetlu ko daan loolu dafa mënta ñàkk noonu la ñuy wax ne lu ngeen ci man def leen ko ci kon nag bu ñu demee ba taxawaay lu mel nii ànd ak docteur yi ba ñëwaat tey yoon ñëwoon Cheikh Mamadou Bassir monsieur Abdou Khadir mu doon nemmikuwaat ak ñoom ci liggéey bi ak leerlu liggéey bi ak rafetlu liggéey bi ba tax mu woote woon moom it danañ ko jox ak cantam ak ngërëmam di leen cant ñoom ñëpp ci turu sëriñ Afiya bu sa imaam mi nga xam ne mooy jiital daayira Muxaddamatul Xidma ak mboolem kilifa yi daayira Muxaddamatul Xidma yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant ci seen i tur di sant képp koo xam ne bi yëf yu jubee ànd ngoog ñun ci xalaat yi moo xam wax la wala jëf la wala lépp loo xam ne rek lu tax mu yëwén la ñu ngi sant ñoom ñëpp cant gi nag xam naa dañ koy jële ci la dale ca kaw médecin chef régional di docteur Mamadou Dieng taxawaayam rafet na mu am ay jataay yoo xam ne am nañ kook ñoom def réunion ànd ak DC Baara Gaye ñoom ñëpp ñoom ay rajo wax ginnaaw bi ñu yebalaat fi seeni ndaw ci jumaa ji ginnaaw ba tamit ñu am ci ay taxawaay yu rafet rafet waaye di sant tamit Mahamadan loo mi nekk Pera nga xam ne taxawaayam ci daayira Moukhaddamatoul ma lu ñu ràññeeku la lu loo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko waaye nag loolu koo xam fi mu bokk du la jaaxal ndax cër bi ma ndax surtout si si Muxtaar Bintaloo boo jëfee jëf ju mel noonu di ci taxaw ci ndigal ay kilifaam ak yéene boppam ak moyen boppam te mu boole lépp ñu ko ci sant bu baax waaye wàcc fii ci gox bi ci euh, sant Ndey Màggat nday Màggat mi nga xam ne bi mu ñëweek léegi. taxaw na ci jumaa ji taxawaay taxawaay boo xam ne ñun ñu fi nekk ñëpp xam nañ yéeneem ci barab bi xam nañ taxawaayam ci barab bi ba waxtu nekk tamit da doon baagandi ci biir màggal gi dina ma ko ñëw ngir lépp aw yoon kon ñu ngi koy sant ci taxawaayam yu rafet di ko ñaanal sëriñ bi tax muy jëf yàlla na ko fay lu kaw njortam ci sàmm ko sàmmal ko njabootam ba mu am riisir gi mu bëgg gën a ko jëmale kanam nag ba lu mënoon loon ren bu déwénee mu mën lu ko ëpp waaye nag di wàcc suñ mbokk yi nga xam ne mooy eh, sëñ Abdoul Ahad Faye ak sëriñ Aale Gaye Aale Guèye ak euh, docteur Thiomal ndax ñett ñooñu dañuy doon ñoo xam ne dañu bokk ci liggéey bi waaye bari wet goo xam ñoom ñooñu ci wuutu ndax bari ñoo xam ne bu dee ci docteur yi bu dee wax ñoom ñoom ñoom la ñuy waxal ñu wax ak docteur yi bu dee ci pharmacien yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi wala ci région yi di jàpp ci garab gi garab yi nga xam ne moo war a am fajukaay bi ndax fajukaay bi dañ fiy faj ci kenn du fay dara ndax ko xam ne day euh, dañuy fay ñaari fan njëkk màggal ak bisu màggal bi ak ñaari fan ginnaaw màggal kon ku xam ne loolu day laaj moyen yu bari day laaj garab yu baree bari doon na irsan la duñ fa taxaw waaye tiwut la fay jaar mooy bari kon looloo tax ñi ci jàpp ñëpp ci wàllu pharmacie yi seenu cant ak seenu ngërëm dañ ko teg ci docteur loxoy euh, docteur Abdou Aziz Thioban mu jot li ko mboolem koo xam ne bokk na ci ku ci jàppoon ci yéene wala ci wax ak lu mën di doon di sant docteur yi nga xam ne ñooy waa tam tubaa assistance médical nga xam ne daaw luñ njëkk a ab liggéey Mm, waaye bañ fi dikkee dañ lañ waxoon def nañ ko ndax dañ waxoon ne sëñ bi buñ ko fekk waatee danga xam ne ñëwin wi wuute na waaye li ñëwee tey xam nañ ne wuute na liggéey nañ fi liggéey boo xam ne amut caaxaan amut mm, lenn loo xam ne day nuru lu dul noona mm. eh, jigéen ñaañ ci jigéen ñi di leen faj góor ñaañ ci góor ñi di leen faj kon lañ soxla woon ci barab bi kon ñoom ñoom ñu leen sant di leen gërëm waaye di sant tamit docteur Modou Faty Diouf mi nga xam ne moo nekk ci di coordonné li wër jumaa ji ci docteur yi te nag mu war a taxaw yëpp taxawu na ko ñu ngi koy sant di ko seedal ay kilifaam di di ko gërëm bu baax a baax waaye di sant tamit nag mm, professeur Daouda Ndiaye mi nga xam ne diggante daaw ak ren dafa am partenariat bu muy ak ak jàppaloo gu muy am ak daayira Moukhaddamatoul Khidma ak jumaatu Touba ba taxoon daaw bi mu fi ñëwee Euh, ci tolluwaay jamono mu xooloon ko daal ne barab bi danaa fi dellusiwaat ba lay déwén waaye yàlla dogal na na ma ko wax woon def na ko ñëw na fi andi fa ay matériels yu baax yoo xam ne renforcé na bagage ya fa nekkoon mm, garab ya fa nekkoon tamit renforcé na ko ba taxawaay bi rafet kon ñu ngi koy sant di ko gërëm waaye di sant tamit bu baax a baax ñi nga xam ne mooy Aliou docteur Aliou Ndiaye di rakkam nga xam ne moom la fi yabaloon ñu euh, taxaw fi mook soxna si mu àndaloon taxawaay bu rafet rafet ñu ngi leen sant ñoom ñaar ñoom ñëpp di leen gërëm di sant képp koo xam ne yëngutu nga wala nga dox lu mu néew néew ci jumaa ji ñu ngi lay sant di la gërëm waaye di sant koo xam ne nag yàgg naa nag daayira Moukhaddamatoul Khidma mu soxna Baalim Sëñ Muntaxa taxawaayam ci jumaa ji mën na sëkk ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm taxawaayam ci bépp maanaam bu ñu yëngatu dafay ñëw ànd kook ñun loolu nag xam gi xam ne bi liggéey bi sëriñ Tuubaa la te moom mu dàkk di wër bu bëgg-bëgg sëriñ Tuubaa moo waral loolu kon soxna Baalim ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ci taxawaay yu mat sëkk waaye di sant tamit ñim ñu boole loon ci liggéey bi di fàllu sëñ fàllu sëñ sëñ Moussa Bassirou ñoom ñëpp di fondation Soxna Bali taxawaay bi war a am yëpp taxaw nañ ko daana ko taxawaay ren di ko gën a yaatal ci lu bare bare bare ndax ku na xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma màggal euh, dem ba mu egg 1000 personnes euh, yoo xam ne kenn ku nekk lenn lu ci nekk rek bànqaas bu bu nit di yëngutu rek am na ñu nekk doon day yëngutu te loola ni ngeen ma gisee ma yëngatu ci yi am na koo xam ne ma nga ca mbale ma ndax jumaa ji waxtu nekk dañ ko doon dañ ko doon dañ ko doon pompe waxtu nekk dañ ko doon setal waxtu nekk dañuy dañuy topp sécurité bi ñu wax dañuy organiser góor ñi nekk ci jigéen ñi nekk ci euh, ba ca armel yi do xusnuma ak armel yi di day laaj personne bu mat sëkk moo xam ñi ngeen gis ñu sol xam ne sax soluñu silé dañuy jaxasoo ci biir nit ñi ngir bëgg xam ne ba si ñu kenn ku nekk dafay ñëw di ñëw ñëw wuute waaye sant nañ yàlla sunu sunu borom mi ñu sàmm euh, fi jamono toll sëñ Tuubaa wanaan ñu boppam euh, ñu dem màggaloon daaw mu jeex ak jàmm tey ji ñu màggalaat mu jeex ak daam jàmm ji gën a yokk lépp gën a réer ñu ngi ñaan yàlla ci barke sëriñ Tuubaa euh, mu jële fii jàngoro yi wax yëpp nit ñi delluwaat seen sago ñu dox nañu bàkki Seexul Xadim sant nañu leen gërëm nañu leen sunu xol sedd na ci yul ñu nag seere rek lañu waaye jëf jëf sëriñ Tuubaa lañ waaye ñu ngi leen sant daal ci tur daayira moo xam ne leen sant bu baax nag ci taxawaay yu rafet dal suñu xol sedd na suñu xel tamit dal na ñu fas yéene nag waañ nag léegi daal tey jii ñu tàmbali waajal déwén fas yéene luñ mën liñ def daaw bu déwén ñu def lu ko daw te loolu la am yaakaar ndax fi ñu dool bari na ñett yoo xam dañuy ñëw ëndaale garab kon loolu nag ku ñëw joxe sa doole joxe sa xam-xam joxaale sa sa sa poos kon xam ne li ngay def li ngay li ngay jëm euh, ñor na la te dama leen wax ni leen man euh, personnel bi ma gis ñuy faj buñ tuddul waneen tur sax danaa leen wuti waxuma nu ñu tudd Touba assistant médical kon ñoom day mel ne seen jëf ji Serigne Touba nangu na ko ndax daa ngeen faj fu ne waaye ngeen dem ba dikk di faj ci biir jumaa Serigne Touba ji jëf ji Serigne Touba nangu la waaye yàlla na Serigne Touba gën a taxaw te bool ñu taxaw te liggéey bi liñ ci yéene muy ngërëm Serigne Touba Serigne Touba defal ñu ko ci ci bàkk Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu وباحي في إخدام خير الورى بدا وفي